ahousubillahi mina sheytaani rajim bisimillahi rahmaani rahim mbokkee xarit yi ñi ngi amaan mbégte di dalal leen seen émission balance euh, tey jii nag li ñu fas yéene waxtaanee mooy actualité judiciaire li ci gën a fës mooy li ci jiitu mooy euh, métier greffier mooy lan ndaxte bëri na ci ñu bëree bëri loo dañuy dégg greffe waaye xamuñu ba léegi loolu lan la und waaye tamit ñi nga xam ne ay apprenti juriste lañ rawatina étudiants yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci faculté de droit yi euh, am na ci bëree ñoo xamante ne am nañu yéene bu ñu génnee exercer ci li nga xamante ne moom mooy greffe waaye bëggoon nañu xam li nga xamante ne moom mooy euh, liggéey boobu noonu laka la wundoo dinañ ci ñëw bu baax a baax waaye tamit yi yëpp dañoo gis ne justice am na benn yëngu boo xam ne ñi ngi koy waajal à travers SYTJUST muy syndicat bi nga xam ne moom moo ëmb mbooleem liggéeykat nga xamante ne ñoom ñoo fare ci cours de tribunaux yi nekk ci wàllum justice su ko defee kon dinañu ànd ak bu baax a baax suñu invité waxtaanee li nga xamante moom mooy seen mbëbët ba tax ko wala bokk bloqué li nga xamante ne moom mooy service public de la justice waaye tamit ñi nga xamante ñoom ñooy usagers yi wala boog justiciable yi am na ci ay mbëbët yu bëree bëri yoo xamante ne euh, dañ koy dañ koy faral di naqarlu mu mel ni kon euh, dinañ am occasion waxtaane ko suñu invité bi ñoo xam ni moom lañ fi dal ak tamit ñeneen ñoo xamante ne daanaka yeneen point yu bëree bëri yoo xamante ne euh, aju ci wàll wi su ko defee kon ki ñu fi dalal ngir waxtaanee loolu yëpp mooy maître El Hadj Aye Boun Malick Diop nekk greffier waaye tamit euh, jiite syndicat boobu di SYTJUST muy syndicat des travailleurs de la justice maître Diop ñu ngi lay dalal. Euh, Ndiaye euh, di kontaan lool ci woo bi ñu fi woo ngir waxtaane métier greffier ak tamit waxtaane activité syndicat bi nga xam ne mooy SYTJUST muy travailleur de la justice yi nga xam ne dañoo mànkoo ci benn mbootaay pour euh, di xeex seen ak ak seen yelleef mm-hmm. euh, Walfadjri bi nag euh, télé bu mag la bu ñu la invité rek mënuñu def lu dul kontaan mm-hmm. kontaan ci invitation boobu. tur bi ne moom sell na lool waaye sant bi day moo ko xaw a yàq moom xanaa ñu soppi ko def ko Ndiaye rek. xam nga Pape <laughs> Ndiaye moo gis moom day am mbuur Diop moom mooy mbuuru njaay xam nga. njaay moom mooy marchandise rek nangul loolu daal. <laughs> baax na njaay mi rek lay dégg dinañu jugé <laughs> alors kon maître fi mu ñu tàmbalee waxtaan bi mooy nga wax ñu lan mooy greffier ci greffier mooy lan. waaw greffier euh, dafa nekk euh, koo xam ne day liggéey ci justice waaye duñ koy dégg rek mais ñu bëri xamuñu ko greffier dafa nekk béykat euh, boo xam ne. fonctionnaire la maanaam agent de l'état la ah agent de l'état la mais rôle am mooy bokk ci ñuy doxal pouvoir judiciaire ndax lan pouvoir judiciaire boo demee ci constitution bi dafa ne le pouvoir judiciaire est par les cours et tribunaux te cours et tribunaux boo ko dégg magistrat la ak greffier yi la kon greffier dafa nekk koo xam ne day participer ci exercice pouvoir judiciaire bu loolu weesoo ci biir rôle ci biir exercice de pouvoir judiciaire bi mooy rôle officier public auprès des juridictions lan mooy officier public auprès des juridictions officier public mooy ki nga xam ne lépp lu mu wax lépp lu mu bind du ñuy jàpp koo xam ne dafa waat ne dëgg rek lay wax. maanaam agent assermenté la. agent assermenté la mais la muy wax officier public mooy lépp lu muy wax lenn mënu ko dindi lu dul ñu dem intenté dindi ko ci benn procédure bu ñuy wax inscription de faux mu nekk euh, euh, procédure bu difficile boo xam ne boo laajee mag ñu liggéey justice ñu bëri nañu la mësuñu koo gis sax donc kon loolu mooy greffier loo xam mu nekk officier public officier public. rôle am ci euh, officier public bi mu doon rolam ci wetu tribunal mooy rolu lu seede parce que olof dafay léeb di wax ne lu amul seede baaxul waaw ndaxte ay nit bu ñuy layoo bu ñëwee taxaw ci kanamu àttekat bi du ñoo am ay yelleef ak i àq ak i warugal yoo xam ne duñ ko war a duñ ko war a duñ ko duñ ko àttekat bi da ko war a sàmm mhm. il faut am benn il faut am benn seede bi nga xam ne moom attewul day toog lu waa ji wax mu bind ko lu juge bi wax mu bind ko ba ëllëg ñi ñuy àtte ku ci kontaanul rek man day sama àq wala sama yelleef wàññi nañ ko fii damaa bëgguñu ñu ko waat ci bindu greffier yooyu lañuy xool ci benn si misaal. ok beneen bi mu nekk koo xam ne tamit day ubbi ay procédure waaw parce que bu weesoo juridiction de jugement yi nga xam ne da ngeen fay siéger eh, di tenir primitif bi également ci cabinet d' instruction yeeg yeneen instants yi tamit également am na taxawaay bu ngeen fay am waaw mooy mbir mi ma lay wax rek mooy mbiru seede boobu rek maanaam tey acte bu juge di jël rek ab greffier dafay toog bu ko bindee ba pare juge bi signé greffier bi ëllëg ah bu ñu waxee ñu ne ah mbind mii lu mucc ayib la hmm. ndaxte yoon dafa jàpp ne Euh, attekat bi buy ate warul wéet ci atte ci atte ci atteem il faut am kuy toog di ko seere xam nga seere boobu sax euh, mooy li huissier yi di def rek ci matière li ñuy wax matière extrajudiciaire tey booy def sa procédure boo bëggee mu sûr il faut mu am benn huissier bu fa nekk di seede ne lii na ko yoon tëralee la jaar loolu huissier ba def ci extrajudiciaire di def Euh, kon kon daal ci tënk daal greffier nekk na koo xamante ne mënta ñàkk ci système judiciaire bi. mënut a ñàkk. mais dañu gis ne par exemple bu ngeen grévé ay gendarme la ñuy indi ñu remplacer leen. waaw ba am na benn année ba ngeen defee grève sax dafa amul lu presse bi génn mooy menace de radiation collective. waaw xam nga loolu moom euh, may euh, profité ci opportunité bi wax ci yee ci nitu Sénégal yi loolu mën naa ne ngeen baal ma ci wax ji ci teggin bi ci ma tey la ci jalgati yoon nga greffier ad hoc yoon sa ngeen mais da ko am fu mu ko fu mu ko tënk dafa ne en matière correctionnelle la tribunal d'instance tribunal de grande instance de de ak instruction ci juridiction yooyu mënul dem en matière civile amu fa mënul dem cour d'appel mënul dem cour suprême mënul dem tribunal du travail ñu gis ne saa bu tribunal di grève bu travailleur di grève ah yenn juges yi ñooy jëlee ay greffier ad hoc di leen indi loolu nag mu nekk lu ñaaw parce que. mais mante lañ. mais du seen man mënumaa def liggéeyu gendarme mais gendarme mënul sama liggéey mooy ni ma koy misaalee rek mi ngi mel ne nga dem nga dem hôpital ñu ne la. Euh, anesthésiste euh, euh, nu mu tëddee anesthésiste bi dafa grève chirurgien bi génn dem jëli benn vulgarisateur bu nekk foofu indi ko ne ko kaay kaay kaay kaay kaay anesthésiel ma waaj wala ñu ne infirmier yi dañoo grève mu génn jël benn ñu mu de jaaykatu gros bi ci buntu tur euh, buntu hôpital bi def ko loolu rek lay niroo ci misaal xam nga liggéey duñ koy jàng ñun duñoo dem jàng ci benn école def fa génn am na ñu formaté liggéey bu nekk dafa am psychologie am formatage yow tey lii ngay def nii di ma interroger tu parce que da nga koo jàng appliqué ko ay anne tey yow bu ñu la dugal la ci nga def la greffier arab doo ci mën def dara gis nga suñu liggéey boobu même juge yi nga xam ne ñoo ñuy côtoyé chaque jour bu ñu bu ñu leen tegoon suñu place ko mën def ñooñu bu ñu bu ñu jëloon teg leen seen seen place ñu mën def seen liggéey parce que liggéey dafa am formatage dafa am psychologie bu muy bu muy indi. ok bu ñu desee ci wàllu. góob ma ñëw foofu nga may ma tuuti. parce que lii dafa nekk loo xam ne ko war a dénoncer. saabu bu benn juge warul nangu ñuy jël greffier ad hoc muy siège seen wet parce que ku nangu ne n'importe qui mën na nekk greffier ad n'importe qui mën na nekk greffier cela veut dire que n'importe euh, justice n'importe quoi la juge bi àtte tamit n'importe qui la loolu yëpp day ñëw di delloo maanaam respect bi nga xam ne tey euh, sunu mbokk juge sunu mbokk magistrat ñi ngiy wax ñu delloo leen ko nañ ko commencé foofu nañu respecter d'abord le métier de leurs collaborateurs yi nga xam ne ñooy toog seen wet ñi nga xam ne ñooy exécutif bi respecter nu mu tuddati justice bi dans sa globalité parce que tamit quoi qu'on puisse greffier mooy doomu ndeyu magistrat ku yab greffier yab magistrat ku yab ku leen boole yab yab justice mais ci côté boobu magistrat seen souci mooy ñi nekk kaso ñu war leen atte peut-être que pour bu mu bañ a am blocage moo tax bu ngeen greffé ñu remplacer leen ay gendarme ah, indi leen foofu waaw mais nag xam nga loolu magistrat dafa war respecter yoon parce que grève ñoom ils ne sont pas responsables des dysfonctionnements yi nga xam ne grève bee ko indi les seuls responsables bi bu ñu nekkee dans l'impossibilité d'exercer correctement leur métier dañuy lem seen bagage toog ndaxte bu ñu jëlee xam nga oignan justice chaîne la nekkul euh, mbiru yéeg audience rek wàcc avant audience am na looy def durant audience bi am na looy def après audience bi la ngay def après audience bi sax moo ëpp décision yu bëri ñu ngi leen di rendre ba ilaa yow mi diin seen i borom duñ ko jot. justement foofu laa bëggoon ñëw ci conséquence su bu fekkente ni yéen da ngeen grève alors ci salle d'audience yeeg ci procès yu mel noonu greffier amu fa yi nga xam dañ leen réquisitionné indi fa loolu ban conséquence ban jeexit la mën a am ci jugement yi wala bokk dogal bi nga xam ne yoon daf koy joxe. dama ne ay centaines et des de jugements yàqu nañu abadan seen i morom duñu am na ñoo xam ne seen i jugement de naissance duñ ko jot ñii seen i jugement de divorce ah, nit condamné nañ la ñu ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen bu audience saa bu audience saa bu grève amee jugement yooyu dañ koy jël jóor ko teg ko foofu ndaxte greffier yi am nañu fulla fulla goo xam ne ku bëgg yàq seen liggéey bëgg def liggéeyu ñooñu donc mooy li may wax rek ñaanuñu ko yàlla xëy na fa grève dootul am waaye dañuy wax bu grève amatee euh, suñu mbokk juge yi nga xam ne ñoog ñoom ñoo bokki ay mettit ngal nañu respecté justice bañ a jël ay greffier ad parce que loolu day ñaaw dara gënut a ñaaw man image bi gën a ñaaw mooy mag gis ab ab juge bu toog ak koo xam ne solu robe bu ñuul toog sol leneen loolu moom bu ñu ko defee day yàq taaru justice te ku yab greffier yab juge te ku yab juge yab ma yab yab yab nañu nag Sénégal nag yaa ngeen di dégg ñëpp a ngi wax ne justice bu ñu ko yab te li ko waral nag ñun ñoo njëkk yablu suñu bopp d'accord loolu dinañ ciy ñëwaat bu baax a baax léegi li tax nga ni euh, hmm. jugement boo xamante ne donc problème bi mooy jugement bu greffier si ñëwul mënuñ ko exécuter boo demee ci huissier tamit duñ ko mën a exécuter dafa am loo dama am lu ma leen fàtte wax xam nga justiciable mooy saisir tribunal mais greffier mooy saisir tribunal ndax lan ñu bëri ñu wax non juge bi bu prononcé rek de non non bu prononcé ci loxo greffier ndax greffier bi moom moo am la mission de garder décision de justice ak nag veiller nag ne décision de justice yi du altéré du yàqu du changé ba ilaa yow mi jin saa boo soxlaa décision boo ñëwee fekk na mu ko war a na mu war mel moom moo la koy nu mu tuddati délivrer ba pare transformer la ko en ce qu'on appelle euh, nu mu en titre exécutoire titre exécutoire mooy décision justice bi nga xam ne dañu ciy apposé formule exécutoire formule exécutoire mooy huissiers yi huissiers yi ku ci gis jugement bi nang ko dem exécuter ci hmm. waaw donc kon greffier mooy dépositaire euh, les actes judiciaires amul benn acte judiciaire boo xam ne dañ ko denc ci greffe kon xool fu ñu condamné Sénégal fii ku ñu looy déposé rek doo ko déposé gis nga même président de la République buy déposer candidature am du ko dem déposer si loxo président conseil constitutionnel ci ab greffier en chef lay dem déposer ko greffier en chef bi tey bu réerale pièces yi wala mu réerlu candidature euh, candidat musiba am na c'est un boo xam ne euh, day bokk ci exercice pouvoir judiciaire parce que boo demee mm-hmm. ci nu mu tuddati duñ ne la les greffiers sont membres de de des des juridictions Euh, auxquels ils sont affectés loolu moo nekk ci seen statut ils sont membres d' accord euh, bëggoon naa xam tamit est ce que métier greffier te xam naa ne question boobu ñi muy gën a amal njëriñ sax mooy ñi ci bëgg dugg mhm. est ce que métier la boo xam ne am na plan de carrière justement parce que li tax ma koy laaj mooy mhm. dafa am benn phénomène bu ñu seetlu mooy entre guillemets désertion laa ko tuddee parce que dañu seetlu ne greffier yu bëri ñu ngi quitté corps bi dem ci ñeneen am na ci xam ne dem nañ nekk avocat am ci ne dem nañ nekk commissaire de police ak yeneen ak yeneen nu mu tuddati xam nga le terme désertion ñun sudjus ñoo ko ñu ko utiliser sax parce que Sénégal li muy yaatu yëpp ci quatorze millions de personnes trois cent dix greffiers ñoo fi am quatorze millions de personnes trois cent dix magistrats yi nekk quatre cent quatre-vingts alors norme internationale duñu ne foo gisee benn foo norme internationale yi benn magistrat war na am ñaari greffier yi mu àndal loolu mooy norme mais Sénégal dafa am inversion ratio tey magistrat yi ñoo ëpp greffier yi alors que greffier yi ñoo ëpp magistrat yi ndax benn magistrat mën na liggéey fukki greffier mais benn greffier mënul liggéey fukki magistrat bu ko te loolu moo am pour le moment da nga gis benn greffier yéeg magistrat bi yéeg magistrat après day sonn li ko waral mooy effectivement amuñu plan de carrière Pape qu'est-ce qui se passe un fonctionnaire boo xam ne day toog si même table lay toog ak juge hmm. si même table lay toog ak procureur la rentrée des cours de tribunaux boo toogee ci fer fair de cheval bi mooy table bi def nii bi fa la greffier bi di toog on dit que greffier kooku agent boobu agent IRHB la benn ñaareel bi ce agent IRHB boobu moom mooy signer ay actu euh, des agents de la des fonctionnaires de la IRHA spéciale maanaam boo xoolee bu bu juge signé greffier signé day mel na nga jël benn décret présidentiel rek si si misaal président signé ou le premier ministre signé ko sous préfet contre signé ko donc déjà rek la nature de leur fonction leur responsabilité ne cadre pas avec la hiérarchie ñu leen dugal ñaareel bi mu am beneen problème euh, da ngay nekk greffier nekk agent de la hiérarchie B2 def six ans def concours bu métti ñu ne léegi B1 ngay nekk moo tax ñun bi ñu ñëwee poser revendication bu bees. no mais attends maître ñu taxaw foofu. des greffiers en chef à la IRHA ah, loolu tam bokkoon na ci seen revendication. waaw xam nga loolu bureau loolu duñ koo xeex bu ñu ba ñu ñëwee du ñu ne greffier en chef liggéey ba muy def technicité xarañ nga mu laaj mënut a nekk agent de la be ñu xeex ba gars yi yóbbu ko IRHI A1. mais biñ leen bañ leen yóbbee A1 ba tey indemnité yi nga xam ne ma nga war a nekk seen kii nu mu tëddee dañ leen ko war a jox. ba tey joxuñu leen ko ñoom lañ doon fayee ko ba nekk B1 lañ wax na ba sonn bokk na nag loolu moo tax sax bokk na ci point de point point bi ñu déposé sunu préavis de grève bi. mujj ñëw léegi pour nu mu tuddati ñu régulariser seen situation. Hmm. am na ñoo xam ne dem nañu def fi formation génn ñu reclassé leen A1. Hmm. retraité nañu am na ñoo xam ne dee nañu ba tey maanaam. ak yi nga xam ne ndàmpaay yi nga xam ne dafa doon ànd seen IRH seen IRH bi defuñu ko ci donc loolu c'est un point effectivement xeex nañu ba greffier en chef yi dem ci mais mooy quelqu'un qui porte le titre de maître minimum il faut le classer à la IRH bac plus 4 c'est-à-dire au minimum A3 la le greffier est le seul acteur de la justice qui porte le titre de maître qu'on considère comme un agent de bac plus 2. mais aussi yéen da ngeen bëgg jël seen bopp tëkkale ko magistrat yi alors que vous ne l'êtes pas aussi. non loolu tamit ça ça problème. xam nga du du tëkkale xam nga fonction ñun ñëpp ay agent de la fonction publique lañ. Mm-hmm. Euh, fonction publique dafa am na ñuy catégoriser maanaam li ñuy approche métier métier dangay ngay xool technicité. ak xarañ gi nekk ci biir nga doog ko catégoriser xam nga tey pour nekk bale balayeur xam nga ni soxla woo am mais pour nekk ingénieur par exemple en génie civil peut être war nga am maîtrise en mathématiques mhm. mais on se pose à ah, léegi maintenant pour nekk greffier yan bagage nga war a am quelqu'un qui monte à l'audience qui qui qui qui pose des actes de procédure qui ah qui qui travaille sur des procédures diversifiées sociales pénales civiles euh, cour suprême fu fu magistrat laa rek greffier mi ngi fa mhm. mais kooku boo koy recruter am na au moins un niveau de recrutement boo ko war a tey euh, si Euh, euh, sous région bi préfecture yu bëri léegi bac plus 4 la ñuy la la ñuy recruter nu mu tuddati greffier donc ça c' est revendication boo xam ne posé nañ ko et nous espérons que nu mu tuddati euh, dinañ ko satisfaire dinañ ko satisfaire donc la transition est toute trouvée pour ñu aborder les revendications puisque am na préavis boo xam ne déposé ngeen ko am na ultimatum bu ngeen jox gouvernement du Sénégal pour que ñu satisfaire leen bu ñu ko deful di ngeen yëngu-yëngal ci biir cour justice bi ñu bëggoon xam également lan mooy seen bëbël lan mooy seen yéen liggéeykatu justice yi nar dem grève Pape foofu nag ma def benn précision xam nga ñun surjus nous sommes dañoo conscience ci milieu bi nga xam ne fa la ñuy liggéey ak sensibilité bi fa nekk maanaam ñun ay syndicalistes yoo xam ne lañu du ñu fooyee grève bien que suñu droit la. mais ci abusé temps yi parce que y' a beaucoup de dysfonctionnement yu muy causé. non kon yow kon yi ñu nekk en détention ñu teel leen fi ñu yàgg ak yeneen ak yeneen. kon yow yaa suivrul bu baax actualité bi mais ñun. lu ñu abusé yu si grève dama lay expliquer durant notre mandat de trois ans de 2014 7 le nombre de jours de grève yi ñu def dix huit la vingt non vingt jours de grève maanaam man mën naa ne ñun tout le mandat ci la ñu am le nombre de grèves yi gën a limité parce que xam nañu les conséquences drastiques yi muy am ci population bi donte parfois sax bu ñuy grève gars yi dañu def ay mascarade di jël ay nu mu tuddati ay grève yi ad mais xoolal conséquences yi c' est des conséquences drastiques moo tax ñun grève balaa ñu koy def. Mm-hmm. il faut nga pousser ñu pousser ñu pousser ñu ba mu ses ak le coût financier également waaw xam nga moo tax ñun. toog di artu di ba nga xam ne noonu vis à day dem ba ci day foog ne kii daf duñ ko ragal. mais bu weesoo grève bi amu leen beneen arme bu leen mën a utiliser. yéen grève gis nga ñun grève ñu rek kaay wax la ñun grève ñu gis nga ñun. on proposé de ñun dañuy proposer ay réformes. maanaam sunu mandat bi ñun duñoo ñoo dem bind ay ay ay ay ay projet de décret d' arrêté qui prend en charge toutes nos revendications discuter ak ministère discuter ak gouvernement bi ñu discuter ak gouvernement bi ñu tombé d' accord mais bi ñu tombé d' accord ba pare xam nga lan mooy problème bi <coughs> gouvernement mais l' exécution de la volonté du gouvernement c' la c' est c' est les c' est les hauts fonctionnaires c' est des directeurs mais voilà Pape c' est parce que le gouvernement et le Sud-Just ñoo tombé sur certain nombre de points d' accord d' accord nañ ci depuis presque euh, nu mu tudd novembre daaw mais da ngay gis benn diligence boo xam ne war nañ ko def qui doit faire au moins euh, ça doit prendre quinze jours mais ñu jël six mois pour lan am des gens yoo xam ne ils sont réfractaires aux réformes yi nga xam ne dafa nara a bénéficier wu nu mu tudd Euh, nu mu tuddee travail de la justice. loolu mooy problème bi c' est pour cela nag ñun. Mhm. bañ demee ba xamante ñu mbir yi ñu niru ñu dépose suñu problème su suñu préavis de grève pour dire au gouvernement que il y des facteurs de blocage qui son là. qui mhm. freinent votre volonté. d' accord léegi ñu ñëw ci revendication yi seen mbëbët lan ak lan la ba tax ngeen bëgg dem grève. xam nga Pape ñun bi ñu ñëwee li ñu njëkk def mooy def benn diagnostic parce que foog naa expert gën a xam justice parce que nous, nous vivons la justice du ñu cee jàngal et ça fait euh, yar ñu ci tàggal ñu ci ay ça ay années presque léegi ñu ngi ñu ngi ci donc ñun du ñoo def sunu benn xayma jàngat ko def déposer benn préavis boo xam ne non déposer benn euh, plateforme boo xam ne maanaam buñ ko saafaree woon justice daal di jag mais comme dafa bëri 59 points la woon ñu tànn ci ay point benn bi mooy plan de carrière bi. statut des travailleurs de la justice revoir le statut de l'école le centre de formation judiciaire beneen bi mooy revoir nu mu tëddee euh, pour euh, réparer le préjudice que le gouvernement nous a causé sur les fonds communs parce que damay fàttali foofu euh, le gouvernement bi gouvernement Macky Sall bi mu ñëwee il nous a causé un préjudice boo xam ne kenn xamul nu mu toll parce que ñun ñoo amoon fonds commun fonds commun boobu Abdou Diouf moo ko fi créé woon Abdoulaye Wade bi mu ñëwee renforcé na ko Macky Sall bi mu ñëwee il a pris un décret boo xam ne dafa rey suñu revenu décret boobu c' à l' époque de Mimi Touré Mimi Touré moo ko euh, préparé woon en catimini ñëw dugal ko fekk de telle sorte que la principale source de recette des fonds communs duñ ko rey waaw donc bi ñu ñëwee on demande demandé à on a ne ko tamis euh, voici euh, da ngeen ñu ñëw fekk suñu benn droit vous l' avez ôté or nu mu tëti dans un état de droit balaa ngay dindi balaa ngay nangu droit wu nit da nga koy jox une compensation juste une réparation juste et préalable négocier nag defoo la xeex nañu ba sonn léegi nag il faut loolu ñu waxtaan nañ ci ba commencé nañ ci am ay début de solution loolu jàll mm-hmm. muy muy muy deux muy deux points statut yi ak fonds commun bi mm-hmm. beneen bi nu mu tuddati yeneen beneen point principal bi muy indemnité yi indemnité yi wax ñu ngi siy waxtaan a gouvernement bi sori woon nañ ci lool avec le, le ministre partant Sidiki Kaba euh, l'indemnité de, de, de participation à la judicature hmm. nous participons nu participons à la judicature expliquer ko lan mooy indemnité de participation waaw xam nga judicature boo ko bëggee expliquer euh, da ngay dem judicature baatu tubaab la bu takkaloog magistrat mooy maanaam la dignité qui s'attache aux aux aux fonctions de magistrat loolay teg boo duggee ci dictionnaire loolay teg la judicature. Mhm. dignité qui s'attache aux fonctions de magistrat. dans d'autres pays l'indemnité de judicature est partagée par les greffiers et les magistrats mais au Sénégal certains ont voulu faire la différenciation ñun bon. question de sémantique la rek nous nous participons à la judicature nous participons au renforcement de la dignité du magistrat parce que fu mu donc c'est une sorte euh, sorte de indemnité de responsabilité liée à la magistrature donc comme nous nous, nous participons à responsabilité moo tax ñu dox indemnité de participation à la judicature donc kon indemnité de judicature bi ñu ko yokkee naturellement war ñu yokk participation à la judicature tey euh, l'indemnité de participation à la judicature euh, ba ñu ko entre temps coût de vie dafa yokk kon war nañ ko yokk ndax nit boo koy liggéeyloo suñu milieu bi nga xam ne mooy milieu judiciaire xam ne enjeu yi dafa bëri da ko war a mettre à l'abri xanaa lii moo tax ñenn ñi ñu bëri gis ne toutes vos revendications sont d'ordre financier non non non c'est pas d'ordre financier benn benn benn benn revendication xam nga ñetti revendication laa la indil waaw parce que statut bi aussi c'est lié à l'argent bu statut bi yokkee salaire bi day yokk xaalis bi yokk non statut bi c'est xam nga statut bi maanaam nit moo bëgg évolution hmm. mais nit buy état B dem état A dem état B c' est ça en réalité. Mhm. donc ñun boo gisee fa ñun suñu eh, suñu revendication pécuniaire ñu ko mettre au devant de la scène mais yi nga xam ne dafa taxaw yoo xam ne ñi ñu ngi koy laaj yi nga xam ne ñu taxaw cramponné wu ci mooy statut bi nga xam ne waxtaan nañ ci gouvernement bind texte yi texte yi dem ba secrétariat général du gouvernement ba mu def lu adoption mhm. secrétariat général du gouvernement a convoqué deux réunions benn réunion bi statut statut statut statut travail de la justice non bu njëkk bi c'est par rapport au statut du, du, du centre de formation judiciaire c'était le 14 juin yaa ngi dégg beneen bi c'était par rapport au statut des travailleurs de la justice c'était le 15 juin deux jours lañu lañu lañu la ñu étudier texte yi bi ñuy étudier le 14 juin le texte le texte du CFJ pour pour école bi bi ñu paree dafa am un certain nombre de diligence duñ ko adopté mais il y a un certain nombre de diligence yi nga xam ne secrétariat général da ko laaj waa ministère de la justice ñu def ko. Hmm. quatre mois ngi nii kenn deful benn diligence. fonction publique. bu demee yóbbu foofu texte yi duñ ne duñ leen duñoo wax un certain nombre de diligence pour ñu mën a étudier texte bi. ça fait quatre mois ces textes sont bloqués dans quelques bureaux malgré la volonté du gouvernement d'adopter ces textes sont bloqués dans quelques bureaux. pour ñu adopté ko donc looloo tax nag ñu ne nag ñun comme suñuy revendication gis nañu hmm. état bi depuis daaw waxtaan nañ bañ ne ok d'accord mais chaque fois day am ay crocs en jambe gauche ak droite nag il faut que a wax ak mais yéen greffier ban ministère ngeen dépendre parce que justice ministère employeur la en réalité ban ministère ngeen euh, l'employeur c'est la fonction publique ok l'employeur c'est la fonction publique mooy employer tous les fonctionnaires mais day am ministère utilisateur waaw ah, l' employeur c' la fonction publique mooy recruter mais le ministère utilisateur mooy le ministre ministère ministère de la justice donc euh, su le suñuy statut suñu plan de carrière fonction publique moo koy euh, moo koy moo koy kii mais non revendication ne directement nantissement yi par exemple damay dégg ngeen koy wax également nantissement ak yu mel waaw loolu lu mu und non xam nga nantissement maanaam euh, benn acte la booy def euh, boo bëggee am euh, ay prêt ak yu demee noonu pour boo baree def ay investissement dafa am ay garantie ñu lay laaj greffe lañ koy def greffier yi ñoom ñooy def garantie boobu bind hmm. comme quoi que nu mu tudd sa oto bi waroo ko jaay ndaxte moom la ñu taylee fële wala sa lii waroo ko jaay ndax moom la ñu tay loolu greffe lañ koy defee hmm. boo ko daan def nag da am ay ak ay ay droit yoo doon fay droit yooyu boo koy fay duñ ko doon jël di ko trésor mhm. pour chaque trimestre comme dans d'autres ministère euh, ministères nu mu fa amee mu nekk fon commun des travailleurs de la justice nantissement boobu nag en 2013 mhm. le Mimi Touré ñëw def projet décret jox ko Macky Sall mu signé ko mu daal di anéantir maanaam avec ce ñun euh, euh, mu régime on a on a senti une paupérisation des travailleurs de la il faut le dire. parce que dafa mel yéen aussi vous voulez le beurre l'argent du beurre et la fille du berger. non en non, même temps. non non non déedéet déedéet du loolu. xam droit nous sommes dans un état de droit nit boo ko fekkee mu téye droit balaa nga koy jël da ngay négocier moom surtout nag bu dee da nga ne tu dois le faire pour cause d'uti euh, nu mu tudd cause d'utilité publique. ok ñëw nga nee nga da nga bëgg way changer le droit et cetera du ñoo bëgg nu mu ti euh, attirer les les les les les investisseurs les bailleurs et autres. Mm-hmm. mais da ngay négocier ak moom. ok ne ko bàyyi lii ma jox la lii. c'est comme ça que ça se fait depuis plus de depuis de plus de siècles dans dans les. d'accord euh, damay ñëwaat ci désagrément yi nga xam ne grève yi ngeen koy def da koy. siable am na ci ñoo xam ne dañuy war a dem def concours wala examen ñëw wut si judiciaire du am casier judiciaire wala bu ñëw wut si certificat de également dañ la dans deux semaines mais balaa ñu ngay jot ay weer jours également yooyu tamit ay mbir la yoo xamante vraiment daf leen di causé moo tax ma doon laaj en dehors de la grève est-ce que amul yeneen arme yu ngeen war a utiliser boo xam ne du lor ñun ñi nga xam ne ñooy jëfandikoo justice maanaam yombul si ñun daal. est ce que xam nga ñun kan la ñu gëj a grève le 11 novembre 2016 ñi ngi xool ñi ngi duggaat novembre un an dégg nga. Mhm. daaw bi ñuy grève en août xam ban ban ban année la ñu gëj a grève 2013. 2013 grève ñu 2014 grève ñu 2015 grève ñu 2016 lañu grève te ba ñuy grève boo daan xool dañuy def. une semaine deux semaine arrêté un mois on fait des grèves de deux semaines avec des pauses d'un mois boo ko si tu te souviens deux semaines de grève mois de pause pour ne pas léser les justiciables mais aujourd'hui quand on a un syndicat qui se veut responsable comme le SYTJUST <coughs> qui est une force de proposition xam ne day bind ay décret di la jox di bind ay arrêté di la jox di def ay réflexion di bind di la jox parce que tamit la matière grise et la parce que gis nga euh, dans nos la mhm. mais y a des doctorats xoolal loo xalaat mi ngi ci biir. d'accord loo xalaat mi ngi ci biir. Euh, man waxtaan na ak yenn travailleurs de la justice yi. Mhm. mais ñoom dañu li leen xaw a jaaxal mooy. Mhm. parrainage grève bi duñ yëg duñ ko yëg duñ yëg lu ko waral mhm. wala parrainage bu ñuy lever mouvement euh, mot d'ordre bi également duñ koy dañuy ne leen lever nañ mot d'ordre bi waxuñ leen dara expliqué wuñ leen maanaam mhm. boobu noonu ñoom benn xamuñu motifié ñaareel bi bu ngeen di lever mot duñ ko yëg ñetteel bi également lëkkaloo bi ngeen di def soit ministre de la justice wala kilifa yeeg yu mel noonu ñoom lu ci bëri ñoom loolu jaaxal na leen te loolu ay travailleurs de la justice ñoo ma ko wax waaw xam nga loolu xam nga chacun peut avoir son opinion c'est mm. certain à chaque fois que nous décrétons le, le, le mot tout le monde suit parce que bu amoon rupture du ñëppay suivre mm. mais sur l'ensemble du territoire ñëppay suivre ñun nous avons notre canal de communication mësuñoo dem daje gouvernement bi génn te defuñu PV du mm. ñuy def PV nous avons un système de mailing yaa ngi dégg un système de mailing un système de mailing bu ñuy envoyé dans l' ensemble des régions dans l' ensemble des ba nga xam ne mhm. lépp lu ñuy def compte rendu mën tey tey tey tey boo tey boo ma ko teeloon wax mën naa la indi l' ensemble de nos PV yi nga xam ne dañ koy def di ko joxe au moins depuis ma ñu toog fi mhm. y' a plus de dix PV yoo xam ne ñun bind nañ ko joxe ko mhm. xam nga et deuxièmement dañoo war a xam benn affaire ñun suñu syndicalisme bo bokkul ak syndicalisme usine xam ne da ngay ñëw daje yéeg fenn rek taxaw ne camarade ñëpp ñëw wër la il y a des gens qui sont à Dakar il des gens qui sont à Saint-Louis il a des gens qui sont à Tamba il des gens compte rendu rek nga mën a def envoyé ko mais travailleurs yu bëri ne nañ ancien bureau bi Ousmane Diagne jiite woon ñoom ñoo doon gën a tàngal ah, parce que bu grève amaan cour palais de justice bi hall bi da doon fees dell ñi takk brassard rouge ak yu mel noonu mais yéen dafa mel ni da ñëw rek weer ngànnaay yi saa ngeen di discuter avec le pouvoir ba ñenn ñu bëri ñoom ñoom yu mbir xaw na leen ah. waaw xam nga chacun avec mhm. euh, sa manière de faire ñun li ñu xam mooy utiliser notre matière grise et lorsqu'il y a li nga xam ne yoon jox nañ ko muy muy muy grève ñu doo ko appliquer mm. et on fait tout pour ne pas l'appliquer pour les sitting moom def nañ ko fii def nañ fi ay sitting bu au palais de justice xëy na gars du ñuy fàtte rek xam nga nag dafa am ñoo xam ne euh, yàlla leen natu ñu nekk ay nit ñoo xam ne par exemple quand ils sont fâchés rek du ñuy bëgg rek grève am man damay yeewu suba damay may frustration mais imaginez bu doon saa bon frustré grève am kon bu yàgg nous allons prendre en otage le service public de la justice grève c' est un acte boo xam ne euh, droit moo ñu ko joxe mais c' est un acte grave xam da nga koy utiliser à moi que vingt jours de grève euh, nu mu en une année déjà sax loolu bëri na daaw nous avons fait vingt jours de grève deux jours de grève yi nga xam ne duñ ko defoon pour affaire heure supplémentaire yi ak dix huit jours de xam ne duñ koo def nu mu tuddati euh, c' est suffisant je crois que l'institution du judiciaire est suffisamment sérieuse hein, mm-hmm. ah, dans sa solennité et sa que ñu bëgg am un comportement étudiant étudiant je n'ai rien contre les étudiants <laughs> ah waruñu milieu xale daal il faut que balaa ngaa d'accord lu sérieux la d'accord ngir ah. clore chapitre boobu beneen préoccupation travailleurs mooy xam nga bu ñu nee SYTJUST syndicat des travailleurs de la justice greffier yi rek taxul ñuy wax ñeneen ci lañ bokk agent administratif secrétaire parquet secrétaire ñeneen ñeneen ñu bëri daal ci lañ bokk ba informaticien yeeg yu mel noonu mm-hmm. Euh, griffe yi rek ñoom ñoo xaw a aaki moom mouvement bi ak yu mel ne loolu tam bokk na ñoom seen doléance waaw léegi xam nga ñu bëri si ñoom dañ ne intérêt griffe yi rek ngeen di prendre en compte ah, loolu buñ ko waxee du dëgg loolu buñ ko waxee je fii tout le monde sunu bureau xamoon na ay bureau sudjus mhm. ay greffier doo nga ci doon nekk sur les douze membres douze yëpp greffier la ñuy doon mais moi le bureau que je dirige actuellement est un bureau hétéroclite mhm. am na ay greffier am na kii je crois que c'est à part égale six greffiers six membres du personnel okay. noonu la demee gis nga man sexaluma leen leb ñi may àndal ñi nga xam ne duñu ay greffier gis nañu revendication bi nga xam ne duñ ko poser pour le personnel regardez xam nga euh, le cadre des travailleurs de la justice greffier en chef le, le, le, cadre des fonctionnaires de la justice greffier en chef moo ci nekk mm. administrateur de greffe greffier et interprète tout le reste du personnel newuñu statut boobu donc c'est un personnel qu'on a affecté à la justice mm-hmm. mais qui ne fait pas partie euh, du cadre des fonctionnaires de la justice mais seen carrière foofu lañ koy defee ñun bi ñu ñëwee qu'est-ce que nous avons proposé qu'est-ce que nous avons lan lañu lan la ñu wax état bi na ko def duñ ne état bi fonctionnaire yi nga xam ne bokkuñu ci ñun waaye ci ñun la ñu nekk benn benn corps bu bees boo xam ne dañ di capter mm-hmm. ñu tuddee ko le corps des assistants des greffes et parquets parce que personnel bi ils viennent en appoint aux greffiers et aux greffiers en chef et aux administrateurs de greffe et nous sommes très en avance dans le statut statut bii ñu bëgg ñuy xeex ñu koy xeex mm-hmm. buñ ko adopté presque la grande moitié euh, la, la grande majorité <coughs> ñoom ñëpp duñ leen di dugal dans le nouveau cadre okay. et dans ce cadre là on leur ouvre des des possibilités de devenir des greffiers et ultérieurement des administrateurs de greffe mais voici des plans de carrière yi nga xam ne ñun bi ñu ñëwee posé nañ ko ah ñun bi ñu ñëwee on a posé yoo xam ne euh, au début ñun bi ñu koy wax sax gëmuñu ko la création du corps des assistants de greffe de parquet personnel bi gëmuñu ko woon le reclassement des greffiers à la hiérarchie A3 greffiers yi gëmuñu ko woon ah euh, euh, l'exclusion nu comment dire encore le verrouillage du du corps des des des des des des administrateurs de greffe pour pour les greffiers uniquement parce que noonu la ma sa demee gëmuñu ko woon c'est des principes yoo xam ne ñun bi ñu koy posé gëmuñu ko woon mais nous a montré que loo demandé wul kenn du la ko jox nous demandons aussi bien pour le personnel et nous demandons pour les greffiers nous demandons pour les de greffe en tout cas moi le bureau que je euh, je dirige actuellement mhm. bàyyiwul kenn fàttewul kenn ok oui. d' accord ñëwaat bu baax a baax yeggali yeneen pàcc yi nga def nga xamante ne moom moo des ci waxtaan bi euh, su ko defee kon régie Cheikh Tidiane Ndiaye ñu observer une courte ngir yeggali waxtaan bi merci beaucoup euh, Cheikh Tidiane euh, Ndiaye euh, maître kon dañuy yeggali waxtaan bi rek maanaam li nga xamante ni moom la ñu junjoon léegi ñu ngi ko doon wax lu jëm ci SYTJUST mm-hmm. yéen a ngi déposé ngeen préavis di waajal grève alors que yéen seen mandat jeex na da war ngeen dem AG comment cela se peut-il xam nga effectivement ñun pré ñu ngi nekk ci préparer mm. mais préparer congrès ne veut pas dire que tu baisses les armes tu baisses les Et en tant que bureau sortant, il nous revient euh, d'organiser un congrès. date sax bëggoon nañ ko organiser bu bu yàgg jëloon jëloon jëloon nañu hôtel ba versé ko ay millions pour euh, acompte jàppoon date muy le 7 juillet euh, le ministre Sidiki Kaba qui était là moo ko waroon présider c'était calé tout sax am un certain nombre d'événements yoo xam ne je préfère ne pas mhm. le dire ici moo indi ñu toxal affaire bi ba de la nu mu tuddati des des législatives après ñu dugg ci vacances judiciaires yi mhm. une partie du personnel est en vacances ñëw a ngi dem fii ñëw a ngi nekk fii donc la période n'est pas propice mhm, mais dès le retour des vacances nous allons annoncer la date réservé nañu hôtel bu mag début novembre waaw parce que ah. vacances judiciaires yi trois mois lay durer également réservé nañu hôtel fay nañ ko acompte mais kii xam nga dafa nekk euh, ñun suñu suñu suñu suñu suñu suñuy revendre suñu suñu suñuy euh, comment dire encore suñuy âge suñu suñuy âgé ça prend beaucoup d' argent ah hmm. parfois c' est des plusieurs millions parce que par exemple âgé bii rek euh, nu congrès bi rek rien que les délégués nous sommes cent quatre vingt dix sept délégués avec des invités donc au total ils seront au nombre de cent quarante personnes et ça risque ça va sur trois jours donc c'est plusieurs millions et il nous incombe nous en tant que lu mu tuddati bureau exécutif national okay. de retrouver ces de parce que tamit il faut comprendre le SYTJUST a grandi amoon na ay temps bu ñu doon def euh, AG bloc ko doon def au manger même le lu euh, mu tuddati euh, mm. sol doon prix mais mais jamono jamonoy secrétaire général Ousmane Diagne dama doon dégg ay CA yu ngeen doon def palais de justice de Dakar ñu nekk ci région yëpp ki yéeg yooyu yëpp ñëw mais est-ce que yéen koy def ba léegi waaw xam nga CA yi aussi boo gisee franchement defuñu ko boo gisee defuñu ko de deux choses ñaar noo ko waral benn bi on nous a parce que suñu congrès bee passé dafa nekkoon na benn séance de réflexion boo xam ne ñoo jox feuille de route leer nañ mm-hmm. CA boo bëggee ñun CA boo calculer le nombre de délégués ça prend beaucoup d'argent alors que euh, le le le le Sudjus est un syndicat bon financièrement ne pas bien nanti quoi Okay. moo tax on a préf euh, on a évité euh, l'organisation de ces CA et autres là. mais n'empêche euh, hmm. pour revenir euh, sur li nga ma interpellé nous sommes en train de préparer nu mu tuddati le congrès hmm. nous avons distribué les cartes nous attendons nu mu tuddati le retour des vacances ga ah, gars yi désigné délégué yi après ñu annoncé date yi wax ban hôtel ñu dem d' euh, leneen loo xamante ne bëggoon naa ci ñëw te ñu bëri sax dañu jàpp ne dafa bokk ci dysfonctionnement du service public de la justice euh, greffe bi dañ ko ciy xaw a mhm. maanaam ñi nga xam ne dañ leen atte ba pare ñu def appel ñu war leen attewaat waaye appel bi day faral di yéex lool lool lool parce que exemple yi ñu mën a joxe mooy ci mbooleem 10 000 détenus yi nekk dans les 37 établissements pénitentiaires du Sénégal maanaam euh, fukki junni détenus yi nga xam ne ñoom la nit yi caabi ñoom dañoo def appel mais ba léegi attewaatuñ leen ñu exemple camp pénal bu am na fa 160 détenus yoo xamante ni def nañu appel mais ba léegi kenn attewa benn exemple kese benn détenu bu fa nekk tudd El Hadj Sadio Ba mhm. dañ ko jugé condamné ko à 15 ans de travaux forcés fi ñu toll tëdd na 12 ans te kenn attewaatu ko ba en appel alors que de sa condamnation la def appel ma jël exemple beneen prison muy camp bu Liberté 6 60 mhm. détenus yoo xam ne ñi ngi xaar ñu rejugé leen mhm. ñi ñu ci mën a joxe exemple mooy les frères Diamé Diallo boo demee maison d'arrêt et de correction bu Thiès également au minimum au moins soixante quinze dits condamnés ñi ngi xaar ñu attewaat leen euh, nga dem prison bu Kaolack également c'est la même chose ak d'autres prisons yu bëree bëri bëri bëri ci dëkk bi yoo xamante ne euh, maanaam condamné ñu def appel ñu war leen attewaat mais dossier bi day yéex a ñëw alors man ci investigation yi ma def il paraît que blocage bi ça se situe au niveau du greffe léegi lan mooy problème bi Pape euh, blocage bi am na bi loo xam ne ci greffe la am na loo xam ne nu mu tuddati parce que greffe bu defee greffe bu defee mise en état dossier ba pare da koy jël yóbbu ko parquet procureur def rapport d'appel ni dossier di nelawee ci greffe yi noonu lay nelawee ci parquet yi ok greffier yi parfois appel lu yàgg defar dossier ba mu jekk yóbbu ko parquet dossier ba nekk fa di nelaw parce que il faut que le procureur def li ñuy rapport d'appel mm-hmm. parce que greffier boo gisee lam ciy def mooy acte d'appel bi defar dossier bi inventorier ko répertorier ko jël ay note d'audience dugal ci biir transmettre ko parquet parquet def la ñuy rapport d'appel en général da nga rapport d'appel boo boo day tardel kii nu mu tudd loolu tamit hmm. donc c'est pour vous dire que affaire bi du ñu indexé tout donc greffe donc léegi maintenant en ce qui concerne des greffes mën naa la ci indil ay apport ay ay ay kii nu mu tudd explication insuffisance du personnel mooy benn ah, parce que léegi yaa ngi doon wax 310 cent y a la désertion non greffiers yi ñi ngi daw mais di daw di dem di wuti yenn liggéey mais la personnel boo ko laalee ñoom ñi ngi jéem a daw di dem ci yeneen euh, ministère comme ministère des finances et cetera donc il y a une insuffisance de personnel les gens sont en nit ñi ñi ngi xoola li ñu yenn moo ëpp seen moo la ñu àttanul loolu nag bu ñu ko bëggee def il faut que état bi jël ay moyen fixer le personnel parce que gis ak loolu personnel ah nu mu tuddati personnel personnel bi boo ko motivul day daw du fa toog loolu benn problème ñaareel ba euh, temps yi état bi day recruter ay personnes yoo xam ne ils n'ont même pas leur place euh, aux portes du tribunal ok amuñu fa sa place ay ñoo xam ne mënuñu bind fonction publique mais du ñuy envoyé nu mu tëddee du personnel ki n'est pas du tout qualifié. Hmm. ndax lan justice am na fond commun rek. recrutement fantaisiste. waaw recrutement fantaisiste politique. boo boo leen defee investigation ay ay ay mindaan la ñu woon je n'ai rien contre les nu mu tëddee les les ñoo xam ne ay boucher la woon gor yàpp la ñu et cetera. kon am na ci ñoo xam ne xoolal parfois lu ñu lay yónnee chauffeur bu am permis te du mën a déglu. c'est moo tax ñun. on a dit nañu le valoriser le personnel bi nga xam ne ñu ngi ci ñun en créant le corps des assistants des greffes de parquet parce que c'est du personnel boo xam dafa am expérience. Hmm. yow tu es un yow xam nga ni. yow bi bi ngay doog a ñëw tribunal bi daan toog di waxtaan ak kii mais yow xam na ni c'est un c'est un milieu ésotérique maanaam il faut comprendre langage bi rek dafa jafe il faut nga def ay années pour mën a percer percer nu mu tëddee percer langage bi nu mu tëddee nu mu tëddee mm-hmm. bi effort yi mu war a def pour nu mu tëddee <coughs> waxuma sa appel mais pour une fluidité ah euh, de la marche du du du service de la justice mooy d'abord motiver personne pour le personne toog mooy nañ leen jox ay nañ leen jox ay payoor yu baax seen fonds commun bi nga xam ne dañ ko désintégré nañ ko nañ ko nañ ko nañ nañu nañu nañu nañ ko defaraat ah nu mu tuddee nañu euh, insister sur la formation euh, nu mu tuddee du personnel nous voulons du personnel formé mm-hmm. des personnes ñi nga xam ne seen expérience am nañ ko ñu ñu ñu ñu valoriser ko. Mhm. en créant le corps des des assistants de greffes épargne. d' accord ci blocage boobu sam ci procès en appel yi am na ci yenn greffe yoo xam bi ma leen laajee ñoom dañ ne mutation yu bëri yi affectation yu bëri yi mooy waral pare mooy compromettre suivi bi nga xam ne moom moo war a am effectif ci yenn dossiers yi. c' est un facteur parmi tant d' mhm. mais li ci ëpp insuffisance de personnes. boo demee je te dis le la le le le mais sama collègue yi fi nekk sont fatigués. demal tribunal instance ils sont fatigués ñuy liggéey ba surmenage da ngay gis parfois sax pour ne pas nu mu tuddati pour ne pas entrer en conflit avec leur supérieur hiérarchique ils sont obligés de travailler le samedi Pape boo mënoon jël caméra dugg samedi palais da ngay fekk gars yi dañuy liggéey chaque jour dañuy liggéey mem le week-end pour dire ka parce que personnel bi du toog greffier yaa ngi démissionné di daw personnel baa ngi démissionné di daw da toog dootoo gis nit ñu ne la ñu ne na yoonam ndax parce que Quand on parle de justice, on, parle, on pense le monde sauf au travail de la justice. C'est ce qui est regrettable. OK. Euh, c'est ce qui est regrettable. Am na leneen loo xamante ni bëggoon naa ci ñu wax ci euh, jamono yëpp presse bi di ko kii mooy scandale de la cour d'appel. nit ñoo xamante ne dañ fa doon liggéey di defar ay faux ordres de libération di ko yóbbu ci prison yi ñuy libérer nit ñi am na ci ñoo xam ne ay sénégalais lañ am na ci ñoo xam ne ay euh, étranger lañ am na ñoo xam ne dañ leen condamné pour trafic de drogue ak yu mel noonee yéen euh, ñi nga xamante ni yéen ñooy yéen a ëmb syndicat bi jiite mboolem liggéeykatu justice yi amaana ñeen ciy yan explication ngay joxe par rapport ak ce qui s'est passé d'une extrême gravité à la cour d'appel de Dakar Pape loolu moom garaaw na garaaw boo xam ne maanaam man du ma koy tudd njombe laa koy wooye hmm. ndax man bi ma ko déggee ba tey man dama dama jaaxle quoi parce que affaire bu garaaw la te war ci enquête bañ ko yemale si ay bouc émissaire rek de xool ñi ci tax ñëpp bu ay sanction di dal ñu sanctionné parce que day décrédibiliser justice nekk ci kaso bi di génn comme daal dugg dugg dugg dugg hôtel génn hôtel au même moment gor yi ah. ñi ngi toog di purger seen ñi ngi toog ñi ngi purger peine gis nga Pape la ko waral mooy la ma doon wax rek palais de justice yi sur ce cas là un travailleur de la justice lañ ci jàpp un hmm. bëri nañu nag benn benn travailleur de la justice lañ ci jàpp la koy waral mooy dafa am ñoo xam ne du ñuy ñëw tribunal miin tribunal miin président miin procureur bu ñu grévé ñoom la ñuy jël di di leen demal gauche di leen demal droite di dugg loolu mooy wax ci il y a des rats du palais ñu fay ñëw di taxawaalu la ñu sañ yow yow greffier sañoo ko ndax ils n'ont pas été formés à ça comment ça tey un un garde pénitentiaire je n'ai rien contre lui retraité toog ci parquet ba six ans kan moo ko bàyyi ci parquet ba six ans mais procureur bee ko fa bàyyi dama boo ñëwee dugg parquet général ubbi fa toog nekk ab ab ab ab ku retraité toog fa kan moo dafa fa bàyyi procureur la fa bàyyi nga dem dans des secrétariats tu trouves des gens yoo xam ne amuñu salaire sont pas des fonctionnaires retraité nañu bu yàgg wala nekk ci secrétariat d'un président kan moo ko fa bàyyi mais président bee ko fa bàyyi wala nga dugg dans un greffe gis fa benn waay yoo xam ne benn vol la taxaw di fa taxaw kan moo ko bàyyi c'est su ab mbir yooyu la gaa yi war a bàyyi bu me bu nee teel ñu jàpp benn bouc émissaire kii ak yooyu non non mm-hmm. mooy li may wax sa personnel ki ne pas du tout formé gis nga gis nga buñ la formé école bañ la gis nga scandale yi ngand yëpp yi am justice yi ngand yi nga xam ne dafa yëngal c'est très rare nga dégg ci un parce que école lañ la fa forme dugal ab benn genre ragal ci yow ba nga xam ne doo ko sañ doo ko sañ ok da ngay moytu da ngay moytu chaque jour da ngay moytu gis nga tribunal parce que ñun on est conscient que xoolal fiir chaque jour lu nekk mën na la arrivé parce que milieu en loolu mooy wax ji ok léegi yaa ngi naan nañ ko bañ a yemale ci bouc émissaire kon da nga gis na yow dafa am ay complicité non dama ne xam nga euh, Olof Ndiaye nee na lu yëngu la koy la koy la ko la ko la ko la ko la koy la koy la koy xam nga ah justice ñoo tàmm bu benn affaire amee rek ñu jël ka ca gën a tuuti ka ca gën a ñàkk bàjjan euh, rek daal di sanctionner mm-hmm. mais il faut qu'on fasse des des investigations approfondies xool ña mais lii lan moo ko waral yow lan moo waral benn waay am fit wala ay waay am fit di jël ay ordre libération di ko jox euh, euh, ay pénitentiaire ñu koy exécuté mhm. ba ay nu mu ay plus de quarante personnes rëcc. parce que euh, mooy pour ñu leeral ñi ñu. scandale la cour d'appel du lenn lu dul. Mhm. dafa am ñu fa doon liggéey ñoo xam ni dañuy jàpp ay ni tëj leen ci kaso bi ñu jël ay këyit di toppandoo signature procureur yi ak juge yi dem di libéré lu nit ñi alors que nit ñooñu libéré wuñ leen bàyyi wuñ leen mën nañ ko tënkee noonu résumé ko noonu. scandale de la cour d'appel bu wax boo am ay nit ñoo xam ne du ñu jël ay kayit yu am signature procureur ndax duñ ko toppatoo wala toppandoo ñu dara leeraguñ ci moo tax ma ne il faut ñu def xanaa procureur sañu def loolu nag non déet xam nga <laughs> dafa xam nga xam nga xam nga euh, nu mu tudd mbir na mu mhm. présenter woo rek nga koy nga koy présenté ok nañu def enquête ba xam ndax lii faux la mhm. wala ndax ay ndax ay scanner la parce que jamono ji yow tey mën nañ mën naa la photo léegi changé la très bien problème de signature yooyu ça m'intéresse beaucoup mën naa la photo léegi changé la avec la technologie numérique la loolu du dara xam nga moo tax il faut qu'on fasse mooy li may waxaat rek gis nga tribunal dafa am ñoo xam ne ñu bëri amuñu fa place ay gendarme yu retraité ñun bu ñu grévé ñoom la ñuy jël ñu yéeg audience ñoom ñooy nekk ci secrétaire secrétariat président yi ñooy nekk ci secrétariat parquet yi nu mu tëddi ci parfois yenn secrétaire greffier en chef yi ñooñu la ñu war a raxas jële leen ci nu mu tëddi dans les palais de justice gis nga bu ñu ko deful ah ñoo fay nekk di def ay njombe nee naa la gis nga sur tout toute cette nu mu tudd masse de personnes mhm. benn travailleur de la justice moo ci bokk malheureusement mhm. et là aussi mooy li ma lay wax il faut ñu xoolaat nu mu tudd le personnel judiciaire ne doit pas être un personnel boo xam ne duñ koy jël liñ ko am ah, c'est parce que acte de procédure ay acte procédure il faut ñu former leen bu dee secrétaire justice la nañ la former bu dee greffier moo gën ñuy jël ay nit ñoo xam ne xamuñu la amuñu le sens des responsabilités. Mhm. indi leen ci pale yi léeg-léeg nga gis ku ñëw ñu la salaam yow saa yi na nga man mës naa di dugg palais benn waaye dama ne ma ah, sëñ bi koy seet procureur. Mhm. ma ne ko toppal nii demal sa yoon. parce que da ngay ñëw ñu lay koj quoi di la di la laaj. yooyu dañ koy gis ñoo xam sax ils se font passer pour des avocats di encaisser xaalisu nit ñi di lekk xaalisu du palais yow xam nga yow li ma lay wax mhm. donc mooy li ma il faut que gars yi def nettoyage tribunal ba ñuy ba ñuy doog a ñëw ci pale bi fii. Tidiane mu may ñëw image au tribunal palais de justice de Dakar ñu xam bu baax a baax. bërëb bi ñuy waxtaanee. duñ ci defoon ay carte ku nekk sa carte carte bu ku nekk lonk sa carte bu dee greffier nga ñu def greffier bu dee magistrat nga def ñu xam kii yee kii mais léegi mooy loolu. amul sécurité nit ñi ñuy dugg. avocat yi sax dañuy sàcc seen téléphone. ñi seen oto yeneen ak yeneen di sàcc seen i oto yu demee ay cambriolage ba troisième étage. lu nekk nekk mën na fa xew. lu nekk daal mën na fa xew ñi ngi dem yàlla daal moo ñuy assister. ok ah, waaw. ok euh, d'accord maître gis nañu ne euh, euh, secteur bi ñuy waxtaanee muy justice am nañu. Ismaïla Madior Fall bi remplacé Sidiki Kaba lan mooy attente ñi nga xamante ñoom ñooy travailleurs de la justice yi par rapport ak ministre jëwriñ ju bees ji. ñun. monsieur Ismaïla Madior Fall. Euh, mhm. ministre de la justice garde des sceaux ñëw na récemment recevoir nañu njëkk nañu daje moom waxtaan nañu ak moom euh, mat na weer léegi mu mat weer ci gannaaw ñun li ñuy xaar ci moom mooy reform bi nga xam ne xeex nañ ko depuis ay deux ans liggéey ci ministère ak gouvernement ba nga ci def dafa ñor mhm. amul leneen lañ ciy def mu mu concrétiser ko ñun loolu lañ ko ne ko am ñu amul dépassé nañu si phase négociation ay signature donc la ñuy xaar loolu nag moo am ay blocage <coughs> moo tax ñu def préavis on le tient pas pour le moment comptable de ça parce que il vient tout juste d'arriver mm -hmm. mais nous avons déposé benn préavis de grève pour inviter ko mu xool lan moo ci nekk ci biir pour ñu mën a dépasser phase boobu sinon il y a des blocages qui sont par par là loolu la ñu bëgg mu dimbali ñu ba blocage yooyu du créer ay problèmes au sein ministre de la justice am na ay waaw waaw am na am ay gré am na ay greffier quand même. ok am na ay am na benn poste de nu mu tuddati. de hmm. de de de conseiller. Mhm. Euh, technique en en en en matière de greffe. ok waaw d' accord bu weesoo également wàll googe union de magistrats sénégalais tam muy kure euh, gi nga xam ne moom moo ëmb juge ak procureur am na njiit gu bees muy euh, président Souleymane Téliko également. Hmm. moom tamit lan mooy li nga xam ne moom mooy attente justiciable yi par rapport ak pal gu beesam gi. attentes justiciables yi par rapport. Euh, euh parce que saa fa yi chaque jour vous êtes en contact direct avec les usagers de la justice donc xam ngeen bu baax a baax lan mooy seen mbëbët seen tawat ak li ñuy xaar. waaw mais xam nga xam nga man euh, li ma ci mën a wax daal mooy euh, je me permets de de de parler UMS parce que le nouveau président c'est mon ami yàlla def na nu mu tuddati nous avons de très bonnes relations avant muy nekk président mm-hmm. ba mu nekkee président ba tey du ñuy maag moom du ñuy suñu yoo taqaloo. dañuy toog di waxtaan di weccoo ay xalaat te nag loolu c'est une première man nekk naa bureau euh, sud juste lu yàgg mosuma gis des membres di demalante bien que nos bureaux son contigus mais moom ba mu nekkee président li mu njëkk def la la chose la plus naturelle mooy ñëw dugg sama bureau je n'ai jamais vu un président de l'UMS ñëw dugg sama bureau mais il l'a naturellement ñëw dugg sama bureau may dem bureau ñuy toog di waxtaan di kii en tout cas xam naa ne daal euh, nit ku baax la mm-hmm. nit ku jub la te fal giñ ko fal borom xalaat la aussi fal gi ñu ko fal mën na indi ay changements yu positifs et je même révolutionnaire pas dans le sens euh, révolutionnaire kii euh, mais dans des de des mutations profondes. proposé am naa yaakaar ci moom loolu yàlla na ko yàlla lafal cat. mutation changement yoo xam ne mën na yegg ba ci ñu libéré Khalifa Sall ah. non je ne <laughs> Non, je ne parle pas de ces choses. Vous savez, la justice attend des réformes, tant de notre côté et mhm. des magistrats. D'accord. Donc, okay. moi, je crois que mën na indi ay euh, idées yu bees. Mhm. Euh, yow en tant que auxiliaire de la justice koo xam ne dangay yëngu ci wàllu yoon tey jii nii lan nga gis ne mooy coppite yi nga xam ne war nañ ko ci indi boo doon proposer ay réformes wala yeneen ak yeneen égal lan nga gis ne war nañ ko ci changer lu bari ci justice bi. man euh, war nañu d'abord yokk les moyens de la justice. parce que quand on prend un budget le budget du Sénégal xool nu mu tuddati les moyens qu'on alloue à la justice ça ne fait même pas un pour cent du budget donc ça traduit euh, nu mu tuddati la vision que le gouvernement a de la justice il faut ñu yokk les moyens d'abord bu ñu yokkee moyens yi il faut ñu yokk aussi bien en magistrat mais aussi bien en greffier en personnel hein, qui assiste les greffiers. ok deuxièmement mooy li may wax. Mhm. il faut que la justice soit euh, exempte de risque nit ñi seen payoor nañ leen fay fayu gor am na ñu bëri ñu ngi nekk justice ñu ngi leen fay fay ñu leen fayu gor muy benn. ñaareel bi am na nag loo xam ne ay discussion kii la nu mu tuddati discussion école la yu demee la yu demee noonu moi je crois que. il faudrait que gouvernement euh, nu mu tuddati euh, gën a def ay efforts pour l'indépendance du pouvoir judiciaire. ok justement. waaw le le pouvoir judiciaire doit être indépendant et réellement indépendant ba nga xam ne justiciable sénégalais yi nañu am euh, confiance totale à leur justice parce que nit ñi bu ñu amatul confiance ci justice rek. Mhm. ça peut créer des choses. yoo xam ne bokk nga ci ñi gëm ne. indépendance justice dafa nekk loo xamante ne lu naax saay la fii ci mim réew. non naax xam nga nax nax dafa am yu mu manqué. Hmm. dafa am yi mu manqué xam nga. Euh, yi mu manqué mooy li may wax gis nga xam nga Sénégal bu ñu waxee indépendance de la justice rek on passe au procès politique mais la justice n'est pas seulement pénale. Hmm. et les dossiers politiques ne font même pas. 0,5 pour cent de l'ensemble des dossiers qu'on juge sur le, sur le Sénégal. xam nga loolu ñu koy fàtte la justice n'est pas seulement pénale mhm. man gis na tey bu ñuy wax justice est-ce que xam man ban justice laay gën xalaat mhm. la justice économique la justice qui attire le bailleurs de la justice commerciale man loolu laay gën a xalaat que justice pénale parce que justice pénale à part euh, nu mu tëddi le seul problème de la justice pénale c'est la justice euh, nu mu le les dossiers politiques mais ñi ngi àtte tuxkatu yàmbaay rey ko ñi ngi leen di àtte et cetera et cetera loolu nu mu rek mooy ki mais man quand je pense à l'indépendance de la justice mm. c'est nu mu tuddati que tous les acteurs de la justice okay. soient mis dans les conditions d'exercice parce mm. que le pouvoir judiciaire le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux loolu hmm. la wax donc on doit mettre tous les acteurs de la justice à savoir les magistrats les greffiers dans des conditions optimales hmm. d'exercice de leur mission Euh, alors leneen li nga xamante ne moom moo am mooy le débat sur la corruption dans la justice loo ci xalaat maître. mais am na. Mhm. il il ne faut pas se voiler la face. am na corruption moom euh, nu mu tuddati am na si dans la justice mais xam nga lu ñuy wax ce n'est pas l'apanage du Sénégal rek. du monde dans tous les systèmes dans tous les systèmes judiciaires corruption corruption kenn mënu ko éradiquer. Mhm. li ñu mën c'est un combat perpétuel dans le sens de réduire ces effets néfastes et prendre en charge les préoccupations des travailleurs de la justice parce que mooy li may wax rek góor balaa ngaa nekk gor am ci loo góor góor hmm. xam nga tey nga toog école tijji war a inscrire sa doom te yow loo ko inscrire ñëw ñu leex maître wala nga ñëw ñu leex monsieur le procureur wala ñu lay alors que nu mu tuddati yaa ngi gis alors que y a d'autres qui sont à l'aise d'autres Sénégalais qui travaillent comme toi dans, dans l'État et qui ne font pas un service euh, plus utile que le, le service que tu fais et qui sont mis à l'aise. Non seulement day créer day créer des situations de précarité mais day indi ay ay frustration donc man dama ne euh, euh, corruption bu ñu ko bëggee xeex na état bi yokk les moyens alloués à la justice mais il y a un moyen faible de la justice c'est le c'est les travailleurs de la justice nañ leen fay nañ leen fay parce que nit ki bu nekkee fu am enjeu mais lu nekk mën na ko def. te insécurité judiciaire moom baaxul ci réew. non baaxul ci réew insécurité judiciaire expert dañuy wax ne en dehors de soulèvements insurrectionnels ak renversement constitutionnel insécurité judiciaire mooy li nga gën a xam ne mooy décourager bailleur de fonds ak ñi nga xam ne ñooy les investisseurs parce que yow tey booy investir dans un pays. mooy sànq li may wax bu ñuy wax euh, indépendance de la justice justice économique lay gën a xalaat. Mm-hmm. booy investir dans un pays mais yow boo demee ba ñu amee la saxaar war nga yaakaar ne bu ma demee ci justice. sama recouvrement. mais bu amee ay joxalanteeg ak ay. koppar te Sénégal l' exécution des décisions de justice pose énormément de problème oui da ngay joteeg nit am sa jugement wala am sa arrêt mais pour nga dem exécuter ko ça pose tout un problème ba mooy indi justice privée sax ñenn ñi def fayul seen bopp ak yeneen ak yeneen yi nga xam ne dañ koy faral di nemmee waaw waaw waaw mais mais l'exécution des des des décisions de justice euh, xam nga parfois nag li koy indi mhm. difficulté mooy xam nga multitude des des mhm. am sa décision de justice ne pas dire que rek da koy am rek dem exécuter gars yi nag ah dugal la ci ay procédures ah procédures yoo <laughs> xam ne Ousmane Thiam dañ lay mere de ñoom Ousmane Thiam <laughs> nga mën nga am mën nga am sa décision de juge mais da ngay jéggi ay procédures yu mais loolu yëpp euh, c' est nu mu si taaru justice la bokk rek. ok taaru justice la bokk temps bi jeex na xanaa ñu bàyyi la rek nga tàggatoo rek. Mhm. waaw euh, maa ngi lay gërëm di la sant euh, di di kii nu mu di inciter tamit sama sama mbokk greffier yi ñuy ñëw ci plateau yi di wax parce que Pape yow doo ma bàyyi problème à chaque fois da nga may woo damay bañ a ñëw sax ah mais finalement je dis à mes collègues euh, bu ñu waxee pour euh, pour des émissions ngeen di ñëw di wax di présenter seen métier temps yi passé rek maa ngi bëggoon def benn thème si casier judiciaire ñu expliqué kañ la ko nit di ñàkk lan mooy casier judiciaire greffier dañuy daw plateau non xaaral ma bàyyi ma laaj président vous êtes des vous êtes des fonctionnaires libres ñëw leen ci plateau yi ngeen wax seen xalaat wax sa présenter sa liggéey dara newu ci c'est pas tu ne pas la loi tu ne pas nu l'obligation de réserve quoi que ce soit. Hmm. ñëw leen ci ci ci plateau. ñeneen ñi di defee expliquer Sénégal li ñu xam état ma day mel ne man rek nekk greffier Sénégal <laughs> Pape Sabou koy jël moo koy loolu daal laa amoon li may wax d' accord jërëjëf ñu ngi lay bu baax a baax ci wuysu bi ñu wuysi woon mbokk xarit yéen ñu leen di gërëm bu baax a baax équipe technique et rédactionnelle bi nga xamante ñoom lañ ci àndaloon di nuyu également toute la famille judiciaire ak mbooleem ñi nga xamante ne ngi bàyyi tamit euh, l'ensemble des régions du Sénégal mboolem daal ñi ñu bëggee ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax l'ensemble des quartiers des 19 communes de la région de Dakar également ñi ngi dem fépp di leen nuyu bu baax a baax Sicap Liberté Amitié Liberté 2 ñi ngi leen di nuyu bu baax a baax la famille Soxna de Liberté 2 fàttewuma leen benn yoon tata Aminata Soxna ak ay doomam ñoom ñëpp fàttewuma leen mbokk yi xarit yi di leen jox beneen jotaay beneen semaine jërë ngeen jëf